Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. salaamaaleykum téléspectateur Equivox TV yi mbégte la ñuy am di dalal monsieur Saourou Sène nekk coordonnateur G7 monsieur Sène ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur Equivox TV. waaw madame maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci Equivox TV di rafetlu déjà invitation bi ngeen ñu may tey. monsieur Sène ñu gis ni tey dañu xëy yéen kaay yëpp xëyee ni waa G7 dañu lancé waat troisième plan d'action ani lan moo waral ngeen sumbuwaat ci xeex bi. waaw li waral ñu sumbuwaat ci xeex bi rek mooy li nga xam ne mooy sénégalais yëpp quand même nañ ko mooy que dañoo amoon loo xam ne dañ ko xaatim ak guvernement au Sénégal depuis le 30 avril 2018. ñu yaakaaroon ni quand balaa ñuy yegg si fii 2020 dina fekk ñu matérialiser loolu nga xam ne mooy accord yi mais ñu gis ni ba léegi poñ yu bëri bëri bëri kenn matérialiser wu ko comme nag gouvernement bi malheureusement fi ñu ko doon xaaree demul foofu accords yi ñu ngi subsister loolu moo tax ñu décider depuis le mois de janvier sumbaat xeex bi te ci fi ñu jëm ni mooy euh, presque troisième plan d'action parce que xam nga premier plan d'action bi ñu ngi defoon débrayage def grève mais aussi def marché bu yëglu à Dakar alors loolu bi ñu ci génnee tase nañu naam ak gouvernement Sénégal mais bu ñu tasee gouvernement wu Sénégal li mu teg ci taable bi ay lay kese la alors que ñun fu ñu toll nii dañu jàpp ni dafa jot nag ñu am ay actes yu concret yoo xam ne ñooy jëmal protocole d'accord bu ñu xaatim depuis le 30 avril 2018 loolu moo tax nag euh, ci exigence loolu la ñu nekk moo tax ñu sumba xeex bi ak gouvernement Sénégal depuis lors gis nañ leen tout le temps la ngeen di sumbu xeex mais boo leen demee ba dernier moment ñu woo benn kilifa wala kenn mu toog ak yéen waxtaan ngeen bàyyi est-ce que du même seen mooy répété wu waat ngeen seen xeex bi ngeen commencé du ñu woowaat keneen beneen autorité mu ñëw waxtaan ak yéen ngeen bàyyi. waaw rappeler daf ci am solo ñu préciser ko euh, li tax ñiy wax loolu mooy la dernière rencontre bu ñu am ak la première dame laatu ñuy signe protocole d'accord bi ma fàttali ñi nga xam ne xamuñu woon fekkewuñu ñun premier dame moo suscité la rencontre mais en réalité bi ñu demee ba kër premier dame président de la république moo toog premier ministre am toog ñu xaatim lu ñu xaatim te biñ ciy waxtaan ci loolu pour xaatim ko premier dame yëkkatiwul benn yoon kàddu kon nag dañu xaatim protocole d'accord ak gouvernement au Sénégal alors protocole boobu nag dañ ko war a respecter li tax nag ñuy dem respecté wuñ ko ñu ñëwaat du ci faiblesse su jàngalekat yi faiblesse su respecté kàddu gouvernement la parce que nag diggante gor ak moroomam lu ñuy jàpp rek mooy bu ñu toogee ba waxante mais lu ñu mën a def foofu rek mooy tënk parce que xale bi nga xam ne dafa xiif ne waajuram dafa bëgg a lekk waajuram teg cin bi mais moom mënul wax ni léegi léegi lay lekk parce que loolu nag il faut ñu togg ko ñu nag dañ jàppoon ni gouvernement bi mu ngi togg mais au finish nous nous sommes rendu compte quand même poñ yooyu nga xam ne dañ am solo trop ci njàng ak njàngale am solo trop ci jàngalekat yi mais gouvernement bi bu ko respecté wul encore du caagan parce que syndicat kaay ñoo yaafuus wala boog dañ leen di nax déedéet dafa fekk ni rek dafa am kenn koo xam ne ci wàll gi lim ci war def def ko deful. léegi ñu gis na ni depuis lors gouvernement bi moom yéeyu ci yàbbe gis nañu syndicat yi ñooy génn di dem ñu gis ñenn ci seen i morom ñuy waa G20. Mhm. ñu tuumal leen comme quoi que ni g dañu dañ leen ay corrompu lañu gouvernement bi da leen jox xaalis lan ngay ñu leeralal ci loolu. anzu billahi min xaalis rajim loolu amul te ñi ko wax. mérité wuñ le nom d'enseignant pour la bonne et simple raison ñun duñu dañoo jàpp ni suñu métier suñu métier lim ñu laaj d'abord mooy la probité intellectuelle gis nga G20 moom mooy woy moom mooy fecc moom mooy tàccu kon nañ ko bàyyeeg loolu parce que nag li xew mooy gouvernement wu Sénégal ñun rek la am possibilité rencontrer parce que nag dañ demoon élection de représentativité leeral bu baax a baax a baax bu ñu waree génn ci élection yooyu ana kan moo war a tase ak gouvernement ak lan ban critère ban niveau de représentativité la war a am pour rencontrer gouvernement loolu bu ñu ko defee lu ñu nekk juróom fukki organisation ak juróom benn yépp juróom benn yooyu mu mujjee tudd ñoom ñoo am 10 pour cent yu ñu laaj kon ñi ciy wax yépp amu ci kenn ci ñoom ko am 4 pour cent kon nag comme loolu am na ci wax la ñu toll nañ leen bàyyi ñu wax mais ñun nag ci liggéeyal jàngalekat yi la ñu toll kon ci liggéey boobu la def nekk maintenant que ñoom ñu tasee gouvernement bi ñun ñu rendre kon jàngalekat yi te ñoom xamuñu lan moo tukkee ci suñu ndajee ak gouvernement li leen dese rek mooy inventé wande nag dama jàpp ni jàngalekat moom warul wàccee niveau ah Walur wàcce boppam ba niveau inventé faire dans la médisance la calomnie loolu ça n'honore aucun enseignant fût-il un membre du g maintenant euh, vous savez dans ce monde-là l'essentiel pour chacun c'est d'assumer ses responsabilités le G7 est en train d'assumer pleinement ses responsabilités face au gouvernement et face aux enseignants qui nous ont fait confiance maintenant li des ñeneen ñi nga xam ne nag ci wax la ñuy tollu parce que seen représentativité mayu leen ñu toog ak ñooñu moom sawru mënu leen teree wax lu leen neex waaye man en tant que responsable puisque responsabilisé mënuma wax lu ma neex dama mën a wax rek lii am jotale ko jàngalekat yi bi biñ ma jox nee ma nii nga war a conduire par rapport à la suite ma jëfe noonu. kon mën nañ jàpp ni G20 moom du voix bu autorisé boo xamante ne war na wax quoi que ce soi malheureusement non pour la bonne et simple raison que comme ni ma la ko waxee avant ñuy dem élection ñun ñëpp tous les syndicats sans exclusion ñun ñoo toog ak gouvernement au Sénégal. ne jot na nag ñu dem ay élections parce que mënuñu am 56 organisations dans un secteur comme l'éducation ñu ne nañ rédiger tous les critères de participation nañ rédiger l'arrêté buy wax ni nit ki pour que mu toggati devant le gouvernement il faut que mu am tant d'enseignants ñu ne téeméeri jàngalekat yoo jël na ci am fukk au moins mais loolu buñ ko defee ci juróom fukk ak juróom benn yaa que en réalité juróomu syndicat ñoo am téeméer boo jël fukk beneen bu leen juróom beneen sax amu ko waaye dañ ni comme syndicat arabisant yi bi ci jiitu dinañ ko jël moo tax ñu jël boobu muy six nga dolli ci nag lu corps des inspecteurs loolu moo ko joxe G7 gis nga élection yooyu li tukkee ci loolu dañ koy respecté bu mu yegg bu dee nag ñi nga xam ne malheureusement pour eux amuñu représentativité ba mu tax mënuñu toog devant le gouvernement bu dee à chaque fois bu ñu tasee gouvernement bi ñoom ñu génn wax lu leen neex parce que li leen neex rek lañ mën a wax mais mënuñu wax li am parce que li am balaa nga koy wax nga fekkee ko comme ñoom fekkee wuñ ko nag nañ leen bàyyi ñuy inventé ba prochaine élection xëj na noonu ñuy inventé xëj na mën na am ñu mu yóbbu waaye ñi sincère ñu honnête ñi franc ñi nga xam ne mérito nañ titre ñaangilekat loolu du leen yóbbu fenn ñu gis ni tey ba ñu xëyee ci revue de presse bi dégg nañ ne g ñu ngi se ne suñu état bi wuyu siwul ci li ñu bëgg composition yi du am est-ce que boo leen defee loolu état bi dina ci yëngatu wala xale yi ngeen di lor. gis nga xale yi suñuy xale lañ état bi mooy république u Sénégal amee u éducation ak formation ma bëgg a fàttali aussi que gouvernement wu Sénégal xam na bu baaxu baax lu mu war def. pour que protocole d'accord bu ñu xaatim ak ñoom ñu réaliser ko buñ ko réaliser ñun nekkuñu ay chinois nekkuñu ay gabonais nekkuñu ay japonais ay sénégalais lañ bëgg suñu réew te nag jàpp ni njàngal ak njàngale rek moo mën a suuxali réew kon à partir de ce moment protocole d'accord bi biñ ko matérialiser le plus naturellement du monde ñu reprendre les cours wante nag bu ñu gisee nag amuñu benn volonté pour matérialiser protocole boobu lëpp la nga xam ne mën nañ ko def pour que gouvernement bi respecte protocole bi mais bien sûr dañ koy def. mais est-ce gisu leen ni ne parce que état bi tey lu ñu mënti wax seeni doom ñu fi doomu baadoola yi ñoo fi nekk ñoo fi jànge suñuy doom ak suñuy rakk ñoo fi nekk. Mhm. que année blanche ou yëngalu leen ñoom. est-ce ngi suuf bu baax yéen xale yi. déet conception boobu mënuma ko am xam nga lu tax mm-hmm. parce que gouvernement wu Sénégal nag tegu fi boppam askan bi moo ko fi teg te lu yàggul dara la kon gouvernement boobu dama jàpp ni mënul am manque de patriotisme ba bañ a faale li nga xam ne mooy l'école sénégalaise pour la bonne et raison que même seen doom bu fi nekkul ñi leen fi teg la seeni doom nekk fi muy sénégalais yi kon dama jàpp ni gouvernement bi. xëy na mën nañu jàpp ni ni ñuy réaliser suñu protocole mun na yeex wala mun na am ay rëq-rëq mais l'essentiel est que le gouvernement a l'obligation d'aller vers la matérialisation des accords en tout cas ñun mënuñu ñaaw njort à ce point là mais de toute façon li nga xam ne moom la ñu yoon may muy loi muy xeex pour que ñu matérialiser suñu accord ci loolu la ñu nekk waaye cherché wuñu caricaturer qui que ce soit ci actualité ñu lay laaj euh, nan nga gisee récemment feebar bi dugg ci Séné kii Chine. ñu naan ko coronavirus ak doomu sénégal yi nekk foofu ani lan moo ci nga ñu leeralal. waaw di di métit li xew foofu Chine di ñaan yàlla suñu borom mu saafara ko parce que nag ñun ay. gëmu ay waay gëw yi gëm yàlla lañu dañu jàpp ni mbir bu ñëwee rek suñu borom moo ko indi te suñu borom boobu ñu ngi koy ñaan mu jële ko foofu Chine di wax ni aussi en bon citoyen sénégalais en bon musulman aussi ñu ngi exprimer tout not solidarité à la Chine Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, mais la Chine nekkul n'importe quel pays dans le monde am na au Sénégal comme partout en Afrique chinois yi gis nañ seeni apport dans le développement au niveau local ba tax na lenn bu leen dalee rek dañ leen war a exprimer suñu solidarité wante nag aussi euh, comme niñ ko doon waxee un état n'a pas d'amis un état n'a des intérêts intérêt wu Sénégal mooy fu doomam mën a nekk mu taxaw ko ñu ñaan nguuru Sénégal suñuy frères yooyu nga xam ne ñu ngi nekk euh, foofu Chine te lenn yóbbu leen fa lu dul xam-xam pour am xam-xam indi ko Sénégal nu nguuru Sénégal jël matuwaay yëpp pour veiller à la sécurité de ces citoyens sénégalais bu dee am nañu une possibilité ñu rapatrier leen au Sénégal le plus rapidement possible na ko gouvernement au Sénégal def pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. ba tey dañuy des ci actualité gis nañu ambassadeur France bi ñëw fii ñu joxe ni datu terre bi dina nekk mois d'avril moom mu contredire le gouvernement bi wax ñu lay laaj lan mooy si sa xalaat. waaw euh, man xawma bu baax ambassadeur u France mais dama jàpp ni dans une tradition républicaine ambassadeur dafa war a nekk koo xam ne c'est un diplomate il connaît les relations internationales à partir de ce moment ki xam relation internationale da ngay mën a xàmmee li relever de ta souveraineté étatique mais li relever aussi de la souveraineté d'un autre État je crois que c'est de l'ingérence que l'ambassadeur de la France a faite soit il l'a fait par inadvertance, ou bien il l'a fait par ignorance, ou bien il parce que tout simplement, il ne respecte pas le peuple sénégalais, il ne respecte pas le gouvernement sénégalais. Si c'est cette dernière conception, je crois que c'est tout à fait inacceptable. J'ai aimé aussi la réaction du gouvernement Sénégal Amnoko, parce qu'ils se sont adressés au gouvernement français pour lui indiquer quand même qu'il y a des limites à ne pas franchir. Euh, L'ambassadeur de la France n'a aucunement le droit une, à une question qui concerne le Sénégal et sa souveraineté c'est inacceptable ñu gis ni yéen a ngi ci xeex gisaat keneen ci yéen koo xamante ne dëgg la bokku leen sax koor muy Guy Marius Sagna ñu tëj ko ci biir kaso bi ñu doon ne tubaab yi ñoo nekk ci ginnaaw muy France ñoo nekk ci ginnaaw tëjëm mhm. tey ñu gis ni même ambassadeur bi prononcé wu waat ci kaawu Guy Marius Sagna ana loolu ñuy wax ci loolu mënuma méngale li ambassadeur France wax ak tëju Guy Marius Sagna man c'est deux choses Euh, J'exprime d'abord ma solidarité avec Guy Marius par rapport au combat qu'il menait. Mais je ne partage pas sa méthode de lutte. Et ça m'engage aussi. Et ça aussi, je, je demande préciser, ça, ça, ça n'engage pas l'organisation du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, parce que nous sommes instance réunir réunie pour voir une position du SAEM par rapport à Guy Marius. Donc, ce que je prononce, c'est Saourou en tant que personne, citoyen sénégalais. Je manifestation ak la mu mën a doon nit mënul taxaw ne dinaa dem manifester palais dugg grille palais pour man c'est très dangereux la le palais présidentiel c'est la plus haute institution de la République du Sénégal aucun warul nangu kenn défier le palais présidentiel encore moins les forces de sécurité sénégalaises bu dee nag def ko waxoon ba pare jëfe ko je le condamne très vivement te loolu aussi bu amee justice su Sénégal dama jàpp ni am na devoir def lépp lu ci yoonam par rapport maintenant au combat qu'il mène mais c'est un combat citoyen que tous les citoyens doivent mener y compris même ceux qui sont dans le gouvernement parce que dans ce pays là dama jàpp ni ñëpp ñooy fay électricité bu dee nag dañ jàpp ni par endroit que augmentation bi ñu def ci électricité bi jaaduwul mais loolu ku nekk war na ko xeex waaye nag bëgg koo xeex taxaw ne man dinaa dem palais mais le problème le palais le centre névralgique mais dafay am zone yoo xam ne tous les sénégalais ont le devoir de protéger ces zones la parce que tey tey tey bu ñu jëloon population bu bëri mu ñëw engagé wu pale soo bu pale mais yàlla rek a xam lan moo ciy tegu euh, insécurité total mën na commencé jóge foofu kon c'est des actes yoo xam ne aussi je les condamne très vivement. ñu ngi lay jaajëfal monsieur Sène. waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier ci émission bi nga xam ne yéen a ngi koy def te Sénégalais yi di ci jëriñu. merci beaucoup ñu ngi ñu ngi am mbégte ak kontaante doon dalal euh, monsieur Saory Sène bu coordonnateur au G7 di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité merci. si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.